ayca cinquième combat de la soirée ba ngi nonu ci digg géew gi mo la dox ci digënté Jams ak Caatu Moussa djum Caatu Moussa djum mo len won ginnaaw Jams ngeen jakkal lol ak Jams ndaysan Caatu Moussa djum ak Jams mbokk yi arbitre bi sifflé na ndeysaan rak la ci Moussa djum moo tax caatu musa jum ak Jams waaye bañ na caatu Moussa Dioum caatu musa jum ak Jams Jams mujjé moma jaaxal jël nako waye waaye bañ na de eh caatu ak Jams caatu musa jum ak Jams Jams ngay roqos ci suuf caatu Moussa Dioum moo ngemb moo ngemb lu weex li caatu Moussa Dioum ak Jams ndeysaan ñu ngi ñaanal bu baax a baax ki nga xamante mooy Moussa Dioum daan na ko laa ilaaha illallah caatu Moussa Dioum li mu def li ndeysaan nee na mag ci ndeysaan ñu di ko wax yàlla na ko yàlla yërëm te xari ko àjjana moom mooy caatu ñoom Moussa Dioum mooy caatu ñoom Moussa Dioum bàyyee ko parcelle ndeysaan billaay ndeysaan nee keela bañ ko jëlee mu ne mat mu ne ma li sama mag defuloon ci lamb yëpp dama koy def oh. kon xale nañ ko jàppale relève la nañ ko jàppale bu baax a baax a baax a baax a baax waaye kenn du càndum kenn du càndum cey càndum waaye moo tax tey li nga ruus gis nga ko waaye cey la fin cey la fin cey la la fin la bisu lan la la fin bisu spécial alxadimiya alxadimiya day def boo ko déggee lay dem ci kan. Cheikh Ahmadou Kara Mbacké. kenn du moom ci mim réew. kenn du moom billaay wallaay. am na Moustapha moo woote. mu ànd ak ki nga xamante ne. Omar Ngala. Omar Ngala kenn du moom. le 20. le le cey le ba dem plateau ba. côté bi. ma côté le du yomb de. jar la cey le 20. le dina safa. moom nga fi safar kenn dootul safarati cey am di Moustapha kenn du yow kenn du moom waaye fàlloo ngi noonu